mbokk yi su ngeen bëggee di jot mboolem vidéo yi am ci Ngaabu Xam-Xam TV da ngeen di abonné bu leen fàttee la notification bi ngir ngeen di am mboolem vidéo yi am ci Ngaabu Xam-Xam TV ausbillahi min aseytaan rajim wa min kulli man lam yuhibbani min arijaali wa nisaayi wa inni uhiisuha bika wa durriyataha min aseytaan rajim rabbi auusu bika min amasat sayatin wa auusu rabbi an yaxduroon rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli wajahal lisaani wa qalbi saakiri kama hindal mamati mahal imani yallahu saddid lisaani nawwir janaani safi amani wasid barayi وكن مهيسا لنا من سر شيخ مسير مع سر فم وزر عين الله وسر سهر وذر خلق إنسهم مهجنهم والسوات سمي الله وكن أمامي وكن خلفي وكن وسطي وفي يمي لسمالي يا رجاء يكوني باب الهداية مخلاق الخواية محتاح الدراية يا سقلقني وسني la lanabluwannakum li saabiriina ahasiba naas li kaasibiina bokk julli di bokki taalibe yi noo ngi leen di nuy di leen siyaare te di leen ndokkeel fas yéene dellusiwaat ci sunu waxtaanu alxuraan ci sunu bindu tey di sunu bindu fukk ki leen koy amalal di seen mbokk seen xarit Serigne Mbacke Lo yi di ko ànd ak sunu technicien nag Cheikh Bey tey nag ñu fas ñëw ci sunu bindu tey di sooratu Xuraysin doon. saar wu ama am solo di saar wu mat a bàyyi xel waaye doon saar wu bari ay njariñ waaye doon saar woo xam ne alayhi salaatu wasalaam bi ko suñ boroom di wàcce ci moom taxut mu xas waa màkka ak jëf yu ñaaw yi doon jëf ci moom lépp di ko jëme ci moom waaye lu ñaaw loo xalaat ak lu sa xel dajut cib safaan ci jëf ju ñaaw walla wax lu mu mën a doon rekk def nañ ko jëme ko ci alayhi salaatu wasalaam waaye ñoom waa màkk ci seen féttirlu gu métti googu lépp ak ci li nga xam ne jëf nañ ko jëmee ko ci yonante bi taxut sunu boroom xas jëmmi askan wa waaye jëmmi askan wa day yàlla sunu boroom da leen a tagg waaye dafa ñëw wax ci seenu commerce ak ci ni ñuy doxale ci wàllum commerce yu demee noonu ci seenu xereñce ak maanaam bàyyi xel goo xam ne yàlla sunu borom mi ngi bëgg ñu koy bàyyi xel saa su ne ci tiraanga joo xam ne yàlla defal na leen ko ak ci yeneen xeet yi waaye yàlla suñu borom ñëwut di leen xas de waaye da leen a tàgg waaye ci biir loolu nag ñen nag ñi nga xam ne ci njiit leen woon mu doon ay benn bennat mooy li ñuy wax individuel ay ket ay bennat bennat nag ñoo xam ne moom yàlla suñu borom da na a ŋàññi xas leen yëjje leen ba def leen sax seenub dëkkuwaay doon sawara ku mel ni Abu Lahab feeñ na ci ku mel ne Abu Jahlin feeñ na ci ak borom xas yu rëy yooyu nga xam ne sunu borom indi na fukki melo wala juróom melo yoo xam ne yépp nee na moom melawoo na ko mu doon ko perte ku perte ma xam ne ñoom ñooñu yàlla sunu boroom sababu nu soole aay yoo xam ne sax wàcc na ñeel leen ñoom buñ ci jëlee ku mel ne Abu Lahab rek di sës ci yonent bi aleyhi salaatu wasalaam daanaka rek doy dee sëkk waaye nag waa Xuraysin tiraanga yi leen yàlla defal lépp te fekkoon ñaar yooyu ya nga xam ne lépp am na sunu maam Ibrahim moo ko ñaanoon yàlla sunu borom keroog ba mu fay bàyyi sunu maam Haajara ak sunu maam Ismaahil doon ko ñaan ca rabbanaa yu bëri yooyu ngeen gis ci alquran nga xam ne rabbanaa yi bari na lool waaye sunu maam Ibrahim loo xalaat lu xel daj ak lu xelu daj lu xel dajut keroog ñaanal na ko waa euh, Xuraysin waaye ñaanal na ko mboolem sëtam yooyu nga xam ne ñoo fa nar a nekk ba keroog sunu borom di dëxañ dend bi ñoom arab yi nga xam ne nag doon giir goo ñi ngi bàyyikoo ci sunu maam Ismaayil ak sunu maam Haajara ci teraanga joo xam ne sunu boroom defal na leen ko ci nangoo dégg ndigal ci boroom soxna su nangoo dégg boroom ndigalu borom këram dem ba say sët lépp yàlla sunu boroom defal leen teraanga ji ju toll ne alquranul karim mu wàcc kenn ci ñoom loolu teraanga gënu ko rëy saar wii nag ñu war a waxtaane muy xuraysin saar wu gàtt la di ñeenti aaya waaye moom xuraysin li muy gàtt-gàtt li mu làmboo ci ay xéewal kenn mun laa xam ne mu toll doon téeméerelu saar ak juróom benn ci alxuraan doon sóoratu xuraysin muy giiru xuraysin doon saar wu am am solo wu mat a bàyyi xel auzu bi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim li ilaafi xuraysin ilaafihim rihlata shitaa'i wa sayfi falya'budu rabba haazal bayti allasi ataamahum min juin wa amanahum min xawfin mu ne ci tur boroom bu tedd bu màgg boobu daal ci lay tàmbalee samay wax ak samay jëf moom mi nga xam ne lépp lu nit di def di ca bëgg barke ci moom nga koy tàmbalee seenu ca barke yàlla sunu borom subhanahu wa jox la barke bu toll noonu waaye ci turu borom bu tedd bu màgg boobu daal nga xam ne moom mooy borom yërmande ji di borom yërmande ju dijj ji ji nga xam ne mate na matale na mbooleem ñi nga xam ne ñooy mbindaafonam yi waaye di borom xéewal yi nga xam ne daj na àdduna kàpp ci ko jaamu ko jaamuwut waaye moom borom yërmande ju sew ji nga xam ne nag da koo xaroo def ko mu doon lu mu bakkar feggul ñi nga xam ne dañu koo gëm di ko jaamu nga xam ne ñoom day seenu pay suñ borom ma ngi koy tàmbalee ca bàmmeel ya ba bis penc ba waaye ba keroog ngi naan ca dégg ba ba keroog ñuy tabbi àjjana doon tabbi gu sax gu sax dàq ànd ak sax dàq ànd ak xel mu dal ci turu borom boobu daal ci la ñuy tàmbalee suñuy wax ak suñuy jëf mu ne mu ne ngir mii di giiru xuraysin wala nga ne sax ngir sababu màngu xuraysin muy waa xuraysin seenu màng miñ daan def seenu mànkoo maanaam ñoom seenu mànkoo cib tukki jëm ci tukki ci jamonoy sedd ak tàngaay tukkib sedd ak tàngaay ci gàddu gu ñu daan gàddu <clears throat> akuk yëgoo akuk mànkoo akuk màng guñ daan def nag ñoom ñëpp ci jamonoy sedd bu daan bu masaana sedd nga xam ne ñoom bu seddee ñu ngi tukki jëm foofu di maanaam ci seddale guñ ko daan sedd ci jamonoy sedd ak tàngoor jamono yenn di ñu ngi tukki jëm yaman waaye yeneen jamono yi ñu ngi tukki jëm saam nga xam ne jamonoy tàngoor yi fi ñu war a jëm waaye jamonoy sedd yi fi ñu war a jëm waaye nag mu ne ci seenu tukki ci jamono yooyu nga xam ne mooy jamonoy sedd wala jamonoy tàngaay ci yor seenu ngànnaay nag ak mànkoo ak màng goo xam ne def nañ ko mu doon ñoo xam ne daan def ñu bari ñii dañuy farewoo rek jiite màng mi waaye ñenn ñi dañuy farewoo di garde li nga xam ne mooy marchandise moomu ci seen wàllum commerce niñ daan ci doxee ci di commerce di dem yaman jënd fa yennati marchandise yi indi ko Makka waaye bu dee jamono yeneen yi ñu dem siri fi nga xam ne mooy Saam nga xam ne moom la ñuy wax léegi ca Damas muy fi nga xam ne Bazar al moom la jiite waaye sunu borom nag di leen fàttali loolu lépp nag moom waaye mi ngi leen di fàttali nanuy jaamu boroom néeg bi nanuy jaamu borom néeg bi yàlla mi leen jox maanaam nañuy jaam borom néeg bi borom néeg boobu nag mooy yàlla mi leen wërsëgal yàlla mi leen jox ñam yi ba xiifunu waaye it mu aarlee nit ba kenn mënu leen a lor ba tiituñu dara moom yàlla sunu borom moom yàlla moom nag li mu defal waa Xuraysi ni ñu ko waxee léegi dafa rëy lool lim leen defal dafa rëy lool ndax xasu leen de waaye bu leen xasoon kon tey jii nii bi ñu duggee ci lislaam dana kéemaane lool xas woowu dafay des waaye gis nga tagg gim leen tagg te suñ boroom xam ne ne ñoom ñëpp danañ mujj doon ay jullit waaye danañ dem ba mujj ñoom ñëpp lislaam jaral leen lu ne jaral leen lu ne moo tax yàlla suñu boroom tagg leen ci lan ci seen commerce moo xam ne daanañ ko def ngir lan bëgg lu ñu suturloo ba duñu soxlaal kenn lenn waaye seen màng yooyu nag dafa am lu ñu ko daan programmer ndaxte bu masaana jël màng mi day am koo xam ne mooy ku mel ne responsable mooy doon responsable bi ku lu demee ne jamonoy Abu Sufyaan moom moom moo daan doon responsable bi ba gi ngeen gisee sax xare Badar bokk na ci li sabab xare daram màng yooyu noonu alxuraan bi wax ni bokk na ci ñu bëggoon a kar ñoom Abu Sufyaan nangu màng ma ba yàlla dogal ñoo ñu rëcc ñu mujj tase ñoom Abu ba xeex ak ñoom waaye màng moom nga xam ne ñoom dañ koy def muy giru Quraysin dañuy boole ñëpp commerçant yi ñëpp dañuy boole kenn ku ne la nga bëgg nga joxe ko joxe sa alal kenn ku ne joxe ku ne joxe ñu boole kenn ku ne wax la ngay jëndlu ñoom ñi nga xam ne nag ñooy responsabilité njëg mi ñoom buñ dikkee dafa am pourcentage buñ ci am su ko defee ñu jox leen ñu takk giléem yi buñ takkee giléem yi nag dem yaman bu ñu yeggee mbooleem luñ fa bëggoon a jënd daañ ko jënd te jamono booba ñu ngi daan tiit buur booba noona te Abraham ci ay pexeem ba tax buñ masaane génn faaw ñu yor ngànnaay yoo xam ne dañ koy yor ngir lan mu doon loo xam ne dana leen mën a fegal waaye nag yàlla suñu borom defal leen ci seen commerce yi ak barke bu dee yenn jamono yi ñuy faral di dem Syrie di fa def li nga xam ne mooy seen wàllum commerce di fa commerce commerce mu am am solo ba sax bi alayhi salaatu wasalaam wootee bokk na ci ñenn nag ca ña fa ne woon dañoo woo kenn ci ñoom Abu Sufyaan ne ko ko ci gën a jege ci bokk ba ñu wootee ana moo ko ci gën a jege ci bokk mu ne man bi mu dikkee mu di ko laaj waaye dafa jël Abu Sufyaan teg ko ci kanam ñi ci des mu teg ko ci ginnaawam nee na bëggoon rek bu dee kasatana maanaam wax na lu dul dëgg mu xamee ko ci bëtu ñi ci ginnaaw. waaye lim ko laaj lépp moo wax mu ne kon loolu day kooku dëggu la te ku dëggal la waaye loolu nag moo tax it teewut suñu borom nag di wax waa Xuraysin ne nanuy jaamu borom néeg bi ndax dañoo jamoon ba bàyyee jaamu yàlla di fa jaamu ay xërëm suñ borom di leen fàttaliwaat li waraloon kaaba gi nekk fi ndax boobu kan ñoom kaaba gi xéewal la ci ñoom yàlla defal leen ko araab yëpp ñee leen ko di ñëw ci ñoom di fi lan di fi àccee di fi indi ay xéewal yooyu yëpp ñu di ko def ba kañ wax Abraham loolu la leen iñaane woon ba tax mu jëloon yéene ne day ñëw ngir màbbu si kaaba gi. waaye nga gis ne loolu nga xam ne suñ boroom wax na ko ne yàlla mi leen jox ba kenn xiifut ci yéen waaye mu defal leen aar leen ba it kenn ragalut ci yéen te kenn it tiitut dara. ñàkk tiit googu mooy lu toll ne ab buur boo xam ne yow fa nga daan dem di jëri ji marchandise. mu doon ko am ngóor gu mag muy Abraham jóg ne day toj si kaaba gi ñëw ne day songu sam réew lay leneen ñëpp toj kaaba gi loolu de ku mu tiitalul dara dootu la tiital waaye waa màkk yëgaluñ ko seen yaram tiituñu ko keroog bi nga xam ne ñëw nañ ba jub dëkk bi jub makka ci seen tool yooyu dañoo wàcc campé bi ñu campé nga gis ne ki nga xam ne mooy Abdul Muttalib mi nga xam ne mooy maami alayhi salaatu moom mi nga xam ne mooy maami alayhi salaatu wasalaam bi mu ñëwee fekk Abraham dafa jàppoon ay bay ay bayam ak xaram bi mu ci moom waxut ak moom lenn ci wàllu kaaba gi donte na xam ne ko tax nee na ko dama gis ne jur gi nga jàppukat danga cee jàppaale sama jur te sama jur googu noonu moom lay kii Abraham lan la ko wax ne ko yow xanaa yow waroon nga am jeneen yitte jurut ak jur ne ko sa daraja lu kawe la woon ci man waaye nag lii nga wax ni tax na sa daraja suufe na ci man te xeeb naa la ne ko yow man xanaa xamoo li ma tax a jug mu ne ko loo tax a jug ko damaa ñëw ngir màbb néeg boo xam ne moom la say maam ak say maamaat ak say baay gëmoon ma ñëw di ko màbb si ma yaakaar ne boo ñëwee ci loolu nga war a wax ak man nga ñëw di wax ak man ci say say bay yi ma jàpp daal tax na sa daraja daal wàcc na ci man suufe na ci man daan ko jël say kii ana la ko Abdul Muttalib wax dana ko déet jur gi sama jur la maa ko war a lijjanti ndax maa ko moom waaye néeg bi nag dafa am boroom te boroom boobu moo koy garde te moom moo ko téel boppam te kenn fekk ko ca mu ne ko ah kon néeg bi dafa am borom kon baax na danaa xam ndax néeg bi am na borom wala amul borom loolu nag am na weneen saar boo xam ne moo ci war a tegul ci suñu waxtaan wi di ñëw dinañ ci gën a yegg ci bu baax a baax nga gis kon kaaraange gi leen yàlla defar ba ñoom duñu tiit dara képp ku yëkkati ab safaan jëme ko màkka yàlla suñu borom delloowaat la safaan boobu nga woo ko kon loolu moom lim gis ne sunu borom wax na leen ko ci seen wàllum commerce te gis nga màkk fii mu ne nii bëri na loo xam ne duñ ko bay waaye mbooleem lu di aw ñam wu ñam wu ñor ci àdduna bi waa màkk bokk lañ ci ñi koy njëkk a ñam loolu nag barke la boo xam ne sunu maam Ibrahim moo leen ko ñaanaloon kon daal waa xuraysin ñi ngi noonu doon ñu yàlla barkeel waaye nag yàlla bu ñu beew ndax nit it saa yu la yàlla defalee teraanga comme lu mel ne bani Israël ba leen yàlla defalee teraanga ñu dem ba beew yàlla def na leen mujj ñu dem ba doon ñu gën a yées ci kaw suuf ñu gën a yées ci kaw suuf te loolu nag kon nag yàlla bu ñu beew yàlla na ñu bàyyi xel la alayhi salaatu wasalaam tiituma ci yéen ngeen di dellu di beew wala ngeen di déggal ngeen di dem di jaamu ji xërëm waaye li may ragal ci yéen rek mooy ngeen topp puñaxtitub àdduna yi di xëccoo àdduna ba farfàtte li leen taxoon a ñëw te loolu nag alayhi salaatu wasalaam yàlla nañu ko yàlla fa fayal ba mu koy wax yàgg na lool waaye léegi dem na ba xaw a dugg ci xole arab yi léegi daal xëccoo ak affaire luxe dem na ba tax ñu bëgg lu bëree bëree bëri ci diine ji ñu ngi koy sàggane kon yal nañu yàlla sàmm yal nañu yàlla aar yal na yàlla def ci suñuy xol dëgg dëgg tawhid yàlla def ci suñu xol ak dëgër ba lislaam duñ ko booleeg dara lépp loo xam ne nar naa yàq suñu diine ñu bàyyi loola te jàpp suñu diine yàlla suñu borom mën na ko yàlla nañu ko defal bi barakat Seexul Xadim lu ci tuñ sant ko yàlla lu ci dëng ngeen jéggal na ko te xam ne matadik doomi mbokk yi su ngeen bëggee di jot mboolem vidéo yi am ci Ngaabu Xam-Xam TV da ngeen di abonné bu leen fàttee la notification bi ngir ngeen di am mboolem vidéo yi am ci Ngaabu Xam-Xam TV